maar di taali waaw dama ne la am na ci génn góor goo xam ne daa mujj dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun la ilaha illa allah grenade la crémation na ko rey yéene kaa ne dama ne la askanu jooxin googe waaw ñoom daal la ñuy sàkku daal mooy Serigne Bara Sène ma nga xam ne moo fa ne te ñu koy tuumaal ne moo bëggee ak diggante bi nga xam ne moo doon dox ci diggante julit ya ak suñ mbokk chrétien yi Cheikh Bara Sène moomee la askan wa ca boppam kon bëgg ñu jëlee ko fa la wax ñëw te gis nga nag te jàppal bàyyil yooyee waaw lu ci tolloo fukki doomu aadama yi bokk na ca juróom-benn gendarme am nañ ca ay gaañu gaañu laa la wax laa ilaaha illallaah ak juróom-ñeent yoo xam ne de teg nañ leen loxo le soleil yéene kaa ne Cheikh Ndigal Sène mi nga xam ne moom mooy baayu Cheikh Bara seen waaw daal di nay dakal projet yi nga xam ne moom la doom ja amoon ko ca dëkk ba le quotidien yéene kaa ne Cheikh Bara Sène moomee waaw ca gàddaay la jëm de day jógee ca dëkk ba de waaw waaw ginnaaw jooxin googu le quotidien yéene kaay nee na ah, fit lay daal di nay dooraat nag ca ndengaleer ay laay la la saison 2 ba dama ne la benn visuel boo xam ne bu sédiment la waaw am na ca ay gaañu-gaañu day mardi itali ay laay la la 24 heures yéene kaay ne dëgg la ndengaleer day ca safara la toog laa la wax ma ngay tas tas si day jàppal bàyyil yoo xam ne ñoo doon dox ca diggante ñoo yor wàllum sécurité sédiment googe ak béykat ya looloo tax ba chef de village ba day daal dinay woote tey jile réunion moom chef de village ba Ablaye John ci libération yéene kaay waaw nee na suñu suuf si duñu ko bàyyi day te duñu ko joxe ëllëg nag laa la wax xoolal leen ma gone gi la di Ibrahima Sène ca digg bopp lañ ko gaañ yóbbu ko ca l'hôpital Sénégal sur sa année dama ne la réew mi ci boppam moom moo dëju ci am suuf suy yëngu foo dem coowal suuf la laa wax demal te duwaanu Kayoor gële wala ba yegg ba Casamance dama ne yeggal ci askanug lébu gi collectivité lébu waaw muy siin ak feneen ak feneen sax coowal suuf saa mel ni tulleeg male waaw mais liggéey amatul ci ci Vox Populi waaw nee na gis nga président fee nekk di liggéey te ay xale ba léegi ne amuñ liggéey ña ngi la patiti patata terrain daal di koy wër moo jaaxal ñëpp ay nooxóor di ay dinosaure yoo xam ne ay million yi millions la ñuy def ci ñoom weer wu dee wu ne ayaa bi mag satala kurus Sidiya Ndiaye yemu ca ndaxte nee na président Macky Sall ci boppam waxam joojee mu wax day yeyul kenn convaincreul kenn ay señor il faut waa bu ñu demee retraite xale yi mën a am liggéey kon ñooñee bu ñu demulee xale yi kon du ñu mën a am liggéey moo jaaxal ñëpp Sidiya Ndiaye ne waaye ñun nag dañoo amul ay leader syndicaliste ay xuusma ñàpp la ñu yor saa bu ñu yeggee ci président Macky Sall yóbbu ay daal di koy delloo laa enquête yéen kaay ne xoolal ma presse fe génn nañ ca mbedd ma démb day toox tànge coono loo xam ne nag moom la journaliste yi di dund ni ne moom lañ doon ñaxtu de Birahim Seck day ci direct news waaw ma ngay ñaxtu nag ci téeméer ak ñaar fukki milliards yi nga xam ni kon bari góol da koo war a fay impôt Birahim Seck ci 24 heures ne agence judiciaire de l'État laay waxal ne ko gis nga bis boo defee taxas féete génn wet mbirum par parloo ci ñi ngay a a Patrick Gool ci kanamu tribunal arbitral bi lée lu njigi bu ëllëgee yow ay njàkk ca jamono jooje Le Soleil yéene kaay nee na élection yi day ah auditeurs internationaux yi ña nekkoon ca fichier électoral ba léegi nag carte gi leer na nee nañ a leer fichier bi amul benn jafe-jafe laa la wax ah laas a ah gars yi ñoom loolu lañ wax de nee nañ amul benn doublon amul ci fichier bi lépp nice good fine laa la wax ah looloo tax nag ba front de résistance ba day danañu jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi suba ngir wax nit ñi yeneen yi lëndëm na mbir ma waaw waaw tribune yéene kaay bi nga xam ne nag waa CEDEAO daal dinañ koy jël ci mbirum parrainage bi waaw Africa Jom rado Ligue sénégalaise bi lé di xeex ak ak yelleefu doomu aadama ah nee nañu Ismaïla Madior Fall kaddu yi nga xam ne kon moom la yëkkati kon ci tribunalu CEDEAO googe jaarul yoon te du ay waxam nag teg ca maître Abdoulaye day ci Vox Populi ah nee na gis nga affaire u sax dañ koo war a maintenir waaye nag ko te génnee ci lépp loo xam ne nag day laalay mbirum calcul politique la xëy rek daal di koy imposé nit ñi waxtaanee ko kenn gaw su ko ma ci 24 heures yéene kaay waaw nee na Macky Sall waxam jarul dóor sa doom de déedéet mais yow juróom-ñeenti atu yàlla yow Macky Sall lijjanti woo xëyu xale yii xëyu gone yi waaw bëgg a xëy tey bëgg ñoo gëmloo ne ñu mën nga ca dara waxuma la sa kàddu yi nga xam ne mool loo Macky Sall di yëkkati de waaw gaw su ko mooy wax nee waaye da ngay gis ci Macky Sall mi lée am tale incapacité Macky Sall mënul régler jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la Sénégalais du dund l'observateur ne communication bi la mu jël nii nii Ibrahima Bakhoum day jàngalekat la waaw nee na gis nga boo jiitee réew ah rawatina nag réew mi toll file nit ñi waruñoo def seen xel ne yow daal da ngay attaqué rek Momar Thiam day jàngalekat waaw nee na Macky Sall ci boppam day terrorisé askan wi laa la wax ci genre kàddoom yi mu yëkkati quoi Ibrahima Bakhoum ne déggoo leen ma dee ci l'observateur gis nga Macky Sall neex na xari la wax dafa war di ànd ak dal Macky Sall a gën a ànd ak dal ñëpp nag laa la wax il a l'obligation d'être plus calme que tout le monde booy benn ñaar gis nga li nga mën a wax ci olof mu jig la laay fekku ca français ba de déedéet man Ibrahima Bakhoum daal li may xelal Macky Sall bu beneen yoonee bu demee bay wax yéen gis nga boo koy wax ci olof mooy gën a jàll ka français bi de kon nag yéen ñi jege Macky dégg ngeen alerte yéen kay day nañu xoolal ma ca kafin gële diggante parti socialiste ak waa kër Macky Sall di APR day xuloo ba door na de parce que Abdoulaye Wilane mel ni xamee Macky Sall mi la ba nuppi nag daal dinay yi yàgg ci moom ne Saloum am na ñuy reyante day évidence yéene kaay nee na Moustapha bi tey day ca diwaanu Nioro gee ah moom day ma ngay dimbali imam ya daara ya hôpitaux ya ak jumaa ya ci noguli loolay dëgg de Moustapha bi tey waaw terminé yéene kaay ne waa Sine TV ak waa FM day defati nañ seenuk manin de raw nañu gaay jiitu leen dóor leen sandi karawaas ñëf dama la sondage u Kantar 2020 Sine TV ak Zik FM day ñoo jiitu ñoo na ca kaw ba tey ah kan mooy jiitu keneen waaye mbir moomee yéene kaay gi nee na sacrifice waaye itam ak engagement ah. ay investissement yu diis jël ay nit ñu mën seenu métier professionnalisme daal di taxaw ngir dugg ci xolu sénégalais yi nga xam ne kon ñoo leen di seetaan dëgg la télé ba seen TV day daal di execo ak lii di TFM bu Youssou Ndour waaye rajo ba moom Zik FM ah gars yi seenuñu ko sax non foofu moom amul débat deuxième ba Novelas troisième ba si Magic quatrième ba Magic TV cinquième ba Canal Plus ak Sox cinquième ba suñu yëf sixième ba Walf TV waa RTS a jël ndaare ndaare buntu ndaare <laughs> ca yàlla waaye nag bugaan ngay dani na xam ne ak lu waa Sen TV ak Zik FM jël p p p p p p loolu du tax ñu fàtte pétrole bi de déedéet parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal